aca Kaolack en finale a ah? waaw waaw waaw Kaolack en finale Kaolack dara Kaolack en finale a waaw ah? droit gaa ngi noonu waaw gaa ngi noonu Kaolack en finale macha allah waaw Kaolack Kaolack waaw sama gaay gi noonu de waaw mais gaay daa mel daa leer na ne en final de ren dañuy yóbbu de ah. incha allah incha allah rabi gaay gi noonu. 2023 nee nañ tout tout droit Kaolack. waaw waaw <laughs> ndeysaan. ñoo fee la force. ñoo fee la force équipe baa ah, ngi noonu. coach yaa ngi noonu père laay suba lay leer noonu incha individuel ya Kaolack en finale par équipe Kaolack Dakar dimas incha allahu rabi finale par équipe waaw Père Aldiouma ngi noonu sunu kot préfectoire gaa gi noonu de ma ne ko gaa gi noonu de waaw waaw final ndeysaan par équipe Kaolack ah mu mbadi de waaw am bi ne gaa Badara internet waaw waaw chance mbër Ndig Mama affaire bi leer na rek gars waaw da gëna gaaw rek dimas ñu assurer rek mustafa de tout cœur avec l'équipe ah Kaolack rek de ah waaw waaw sama gaay gi non ne ada saay Lamine job carte gi leer na de ah waaw dafa day na gëna leer rek inshallah rabbi inshallah rabbi allah rabi sama gaay amu waaw gaay gi non ci kamba yaa gi non ne ah 100 pour cent Kaolack rek 100 kaolak mën ta ñak nak lu gëna a rek day gëna a yey quoi waa gaa yi ngi noonu staff bi gaa yi ngi wàcc abu soosoox abu papa ngaan ngi noonu ah. waaw waaw eh, mbër aca maat yi aca